ñu koy wax mu yegg si fi nga xam ne moom moo di ci plateau wu Dakar ne dort pas elle a magnifiquement bien travaillé alors je voudrais euh, crier très fort toutes nos félicitations Ngoné Ndour Kouyaté naka nga def. mbaa yaa ngi si jàmm ça va ça va naka yi tey dama bëgg nga xool téléspectateurs yi. Uh-huh. waaye yow da wax laaj la ku la habillé. sama sama sœur. sa sœur. Abibatou. non euh, Kiné. Kiné la petite la petite. la cadette. la cadette voilà Kiné. Fat Kiné moo defar lii. voilà Fat Kiné moom mbaadu dara. ku mu joteel. ah doy na léegi yow kan nga jotal ci collier bu rouge ak euh, bracelet yow lan la mbaa dara yow tamit. dama kii rek. da nga légère noonu. simple rek. simple li nga simple neex nañu. nga yow yaa organisé euh, yow ak euh, waa Prince Art li nga xam ne moom moo di événement bi nga xam ne moom moo ñu fi dajale tey li nga xam ne moom la Pape Diouf ak Génération Consciente le grand bégué. c'était véritablement difficile de produire d'abord l'album et d'organiser un spectacle de de la dimension. oui un challenge. Un challenge Oui, euh, qui a été surmonté quand même. Donc euh, ça fait euh, six mois qu'on y travaille. Et euh, je me rappelle, le premier jour, il y a Pape Diouf, il y a anniversaire de fille. Son fils Donc on lui a dit, ça va fonctionner. Donc euh, on y a mis les moyens, bombardés en termes de promo avec euh, quand le groupe Futur Média. Et le résultat est là, la salle elle est pleine. Donc amna sax ñu ci bari ño xamné ci la ñuy tok. Donc voilà. Euh, Ngoné xam nga tey jii bu ñu gisee lii euh, ci télévision bi ñu ñëw di def en direct euh, nit yi dañu xam ni liggéeyu longue haleine la Pape Diouf daf ko liggéey liggéey bu yàgg. waaw liggéey bu yàgg bu sori. ndax man mënuma ko wax mais xam naa ni Pape. bu ñu ko waxee ndaanaan la buñ ko waxul ndaanaan la dañuy ñàkk iñaan mm-hmm. wax ni Pape ndaanaan la mm-hmm, mm-hmm. ba pare yiw na yaru na kon war naa mën a am lu mel nii confirmé confirmé c'est-à-dire euh, man damay faral di ko wax ne toujours ne Pape Diouf man toujours dama koy jël comme benn genre modèle u ci jeune nouveau talent yi parce que c'est quelqu'un boo xam ne ne que ne pour man euh, euh, xale yi jàng way mën nañ jël ci moom lu bari parce que il faut dire que dans une carrière boo brûlé wul ay étape nga topp sa sa cursus normal évolution bu normal nga mën a am donc Pape Diouf évolution bu normal la am sa à dire euh, dafa dafa dafa tey euh, topp euh, jéggiwul dara sotewul benn étape c'est-à-dire dafa dafa fi mu war fi mu toll tey foofu la war a toll tey donc je pense que ni aujourd'hui il le mérite déjà il a un grand cœur Mm-hmm. Euh, nit bu baax la xolom dafa rafet euh, macha allah talent bi mi ngi fi. Mm-hmm. donc euh, voilà ça ne pouvait qu'avoir du succès. alors Ngoné yow da ngay produire aussi yaa ngi produire li nga xam ni moom moo di loolu ñuy wax loolu xale yi def loolu nga xam ni moom moo di seen. seen seen seen seen seen daje boobu xale yi daje. Mm-hmm. tuddee ko seen petit man xam nga luy xew ci télé bi dama ci sonn. damay génn buntu Futur Média fekk xale yëpp toog naa ma dama bëgg dem seen petit gàlle ma bëgg nga wax ma un peu comment ça se passe comment ça s'organise comment se font les castings parce que je souffre énormément dans ça non au fait seen petit xam nga depuis daaw lañ ko euh, testé woon mhm. ak ak euh, Futur Média TFM et euh, nit ñi bëgg ko lool parce que quand même quoi qu'on puisse dire y de l'émotion xale yi dinañ si jàng et que vacances la nekk et que on s'est dit que euh, pourquoi ne pas ci xale tuuti ñu jëm ci xool pour foo ci vacances yi jéem a xool kan moo ci mën a way am ay talent donc daaw bi nu ko defee euh, am na ay xale yoo xam ne ne que ni dañuy way comme ay mag ñu génn te dama ne woon daaw danu bettoon ay xale yu bari ñoo xam ne ne que ni ils ont beaucoup de talent mais mënuñu woon bokk ci concours bi parce que peut-être dañ ko yéex a ren moom déjà euh, on a des yu xaw a pare donc am na am nañu candidat bu Thiès am nañu Tamba am nañu Matam am nañu euh, euh, Saint-Louis am nañu euh, am nañu Kédougou am nañu ko di Mauritanie dañ ko mujj génne parce que pourquoi ñu génne ko dañ ko remplacer par Kédougou pourquoi ñu génne ko parce que on est en train de rechercher benn société de téléphonie pour que aussi ñi nekk Mauritanie mën a mën a votel seen candidat loolu amaguñ ko ba tey donc même Gambie on est en pourparlers avec des sociétés de téléphonie parce que daaw dañ ne woon xale bi ñu ci dugaloon ñoom mënuñu ko woon votel parce que euh, euh, Tigo bi nekkoon kii bi ak euh, waa Jet multimédia numéro cours yi ñu joxoon ñoom mënuñ ci woon voté donc ren on est en train de voir vraiment pour doon jox aussi xale yooyu di jóge ci yeneen gox yooyu ay chance donc affaire bi mu ngi démarré déjà candidat bu kii moom moo ci des bu bu Kaolack bu jurbel ak ak bu bu Fatick donc euh, trois jours yi lay jeex ak bu Dakar Dakar nag c'est un grand problème parce que hier j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que banlieue bi ñoom ñoo bañ bokkuñu Dakar ñoom il faut ñu am candidat donc on est en train de voir est-ce que banlieue bi duñ ko wutal candidat boo xam ne ne dafay nekk à part Dakar am candidat wam. mais gàdda ah dégg de ci xale yi région yi. Hmm. doy na waar de. Ah. ren daal moom xanaa ne. TFM ku yóbbu koc rek. <laughs> ku yóbbu waajal rek alors euh, yaa ngi ñëw ci grand bégué bi alors euh, Pape Diouf pare na. pare na Pape Diouf pare na. vraiment spectacle bu ñuy réserver euh, ñi fi nekk ak ñi euh, euh, téléspectateurs yu TFM yi ça va être magnifique c'est ça va être du jamais vu. du jamais vu. du du artiste rek boo xam ne que ni dafay ñëw yéeg sur seen tëgg c'est autre chose et nit ci dinañ gisal seen bopp et on verra. Ngone bul dem mhm. ni ko sama papa Khadim Samb di waxee tegal foofu sa baaraam ma ñëw comme Khadim Samb sama xarit la dama am benn benn jeune cordonnier. Mhm. boo xam ne dafa maa seet si ku baax sil Euh, benn jeune cordonnier boo xam ne daf maa yegsi ku baax yegsil euh, daal di ñëw indil ma benn daal fan yële daf ma may daal ma wane ko ci Dakar na doot pas bi yoon mu waat daal indil ma ngoone. man de daal bi dama ci bëggoon tëdd. tëdd <laughs> ngoone da nga cee bëggoo ci dem France. daal bi tegee ci géej gi xam nga du xam nga day tëm. wax ah, lu daal ngoone. wax ah, nga ngoone lu daal. ah daal bi wax nga dëgg de. ku baax naka nga def. waaw jële sa micro naka nga def mbaa yaa ngi am jàmm yow cordonnier nga yaa ma mayoon dàll boobu ma woote wane woon ci télé bi jamono yële naka nga tudd Maguette Seck Maguette Seck yow fan ngay defaree daal maa ngi nekk rue 22 angle 33 mhm. Médina rue 22 angle 33 mais xam nga ñi nga xam ne ñoom ñoo di cordonnier yi mhm. euh, nekk foofu dañoo dañoo bari mën nga ma wax atelier yi nekk foofu noonu ci rue 22 bi ak ci rue 11 bi noonu mhm. bon foofu buñ fa boo fa diggee boo laajtee Max Création. Mhm. dina la indi sama place. Mhm. bon bokk na ci place yi nga xam gën a gën a siiw foofu. Mhm. ak euh, rue 25. rue 11. vraiment foofu boo fa demee moom xam nga vraiment affaire yi na trop gars yi di dóor lu rafet. Uh-huh. man nag dama kontaan trop. Uh-huh. ndax euh, bu ma bu ma defee lii avec cause de toi yow yaa ma def lii. parce que dama gis ngay nekk ci bi. di di def affaire bu nice mhm. ma gis ci sam bopp en tant que cordonnier jeune cordonnier xale bu ndaw mhm. ma gis sam bopp mhm. ma njëkk a def benn affaire mu neex ma trop ma ni du may dolli parce que TFM dañ comme miroir du Sénégal la ñun ñëpp ñoo ñun dañ ci war a gis suñu bopp ma ni ah dama ci gis sama bopp. ma defar affaire bii nii. xool li ngay caxaguñ ci télé bi mu neex ma. bu caxaguñ accès fii avec cause de TFM. Ah. vraiment vraiment loolu moom. TFM daal moo fi wane caxaguñ. TFM moo fi wane caxaguñ. Ah. te kon vraiment bu TFM ñëwee def affaire bu nice war naa ci mën a créer bu gàtt. defar ci daal bind ci TFM. Ah. lii groupe Futur Média laa def ci suuf nii. parce que bu nee TFM rek. Hmm. ñun ñëpp ñu ngi si biir. yow wan ko Futur Média bi yow groupe Futur Média bi. jaa ngi seen nii lii mooy groupe Futur dama ko abrégé nii. vraiment dama leen bëgg sama xol dama leen di bëgg chaque fois. ndeysaan bon kon lii ma def nii. Hmm. dama ko def avec cause maanaam Youssou Ndour mu nekk sama fan ma yàgg a bëggee. mais oh. mais Ngoné nattal. non <laughs> da ngay natt wala da ngay tëdd. li kay damay tëdd. ah mais c'est joli c'est joli création man man euh, euh, Sénégal li liggéey fii man gis na su may tukki. Hmm. su may mayee ay ay ay su ma yóbbu ay kii nu mu tudd ay charité hmm. man bu de laay dem jënd. et les gens de l'extérieur ils apprécient. Ah. loolu la ñuy loolu la ñuy yii la ñuy lii ñuy apprécier daf leen di daf leen di manqué donc donc euh, liggéey bu rafet la léegi yow dàll bii nii mhm. style bii nii mu mel nii mhm. bii mooy caxagun kii mooy caxagun léegi yow ci korité beeg tabaski bi kuy ñëw rue 25 est-ce que dina mën a am dàllu caxagun boo xam dina nekk ci pointure rue 22 angle 33 waaw boo ñëwee laajte max rek max création boo boo ñëwee rek Maguette Seck di nga gis ni dafa max création léegi man suma ma tabaski. Ah. ak korite. Uh-huh. su ma solee sama grand boubou mën naa am dàll bu ma jot bu ma jot nii. bien sûr. ah bien sûr bu da bu dàq bi bu la jot. ah ak petit Jules tamit. <laughs> mais ñëpp a ci am. lii bu ñu ci defoon moteur dañuy dem France xam nga. mais bien sûr parce que bi ma ci xalaatee ba pare. dama xalaat li man su ma ko tegan ci géej gi mën na ma mën na ma yóbbu Espagne. dëgg la parce que bi ni mu bindoo. en même temps dama ci xalaat loo xamante ni. naa trop vraiment man man dama ko def nii rek pour pour pour lancement. mais aar la aar la aar la vraiment maa ngi maa ngi xalaat yeneen ak yeneen. yeneen mais defaral yu bari. gars yi nag ma wax gars yi ñu ñëw jënd si foofu rue 11 rue 22 rue 25 mhm. rue 23. dem nga defar yu ndaw a ndaw ndaw mhm. yoo xam ni caxagun nga ciy def mhm. Ah? Mhm. nga xam ni moom mooy xew ci moom mooy xew ci nga defaral yu ndaw rek amul benn problème merci bokk merci beaucoup mënu ah. ma trop mu jëm ca kanam amiin amiin depuis mu tijjee ba tey moom rek laa am yàgg wax ne man lii dama ci war a gis sama bopp dëgg la loolu dama ko yàgg rêvé bokk nga bokk nga yàgg na bokk nga bokk nga merci beaucoup émission dàll bi ngeen war a def émission dàll bi ah. benn problème ah, la chaussure la chaussure <laughs> merci beaucoup Maguette merci beaucoup Ngoné et puis rendez-vous tout à l'heure merci beaucoup merci beaucoup alors euh, dañuy ànd ndokk ki nga xam ne mbokk yi moom moo di ñett euh,